Euh, euh, euh, rafetlu rek rafetlu kàddu yi parce que tamit ministre bi ministre bi suñu suñu suñu kilifa la te wax dëgg yàlla am na loo xam ne réflexion yi du nekk benn parce que ñun ñi fi nekkoon yëpp ku ci nekk ku ci nekk ak na ngay xalaatee waaw mais nag bu bu nekkee da la nekk di ñaxtu ay mbir nekk sa droit pendant pendant des mois pour man bu la ki nga xamne tay euh moy CNG nek fi euh yagu ñu diriger depuis 94 ba légui su nekkee dañ am di casse yoy droit pendant des mois kilifa am gis ñu ñun li ñuy porter ci suñu ay droit la ñek wolu ñu dañ ñëw wuy ko te deglu nañ ko attentivement te ñun ñun it li nga wara jëbël jëbël jébbal nañ ko mu tambar ko li nga wax rek moy euh tay euh amul len ci adina ça ne veut pas dire que kuñ jox cër la. Nous de génération déglu attentivement am ay cadre wax réflexion mais ça ne veut pas dire que nous combat nous ñu dañ amuñu luñ buñ ko jox attentivement mais ça ça ne veut pas dire que nous plan d'action nous ñuy mëne ah am luñ normalement euh, ñu koy déglu jë jëbbal nañ ko référendum bi ñu def ñu koy déglu ñu koy déglu te ah te bu ñu jógee fii nañ concerté wu entre nous ñun ñi nga xam ne ñoo nekk euh, ñoo nekk suñu biir waxtaan suñu biir xool tamit lu ñuy mëne waaw loolu moo war a waral suñu. Euh, waaw ama tey non a pas parce que tamit mbir loo gis ministre bi muy ñëw asalaamaaleykum bi mu soog a toog euh, yeneen discipline yi fi nekkoon yëpp am na ci réflexion yi mu ci def. Euh, basket dafa amul problème da ko réglé ba mu ba mun a koroj football bii nga xam ne mooy suñu mooy mooy moo moo war a coow li dafa am problème avant ñuy dem coupe du monde moo na par force day am assemblée générale ñu réglé ko làmb jëloon na ci ay décision na dafa na dafa war a nekk fédération réglé ko mais dem na ba ci biir euh, euh, waxatul lu ci jëm moo tax ñu koy rappelé wax nañu expliqué nañu am na ay réalité yu nekk ci fédération yoo xam ne bu ñëwee normes yu bëri day changé on assume parce que boo bëggee defar da ngay parce que làmb fu mu ak li drainer c' pas pour rien président de la République jël 32 milliards 32 milliards du caaxaan jël ko def ko ci benn sport te sport bi mbër mbër moo gën a néew lu mu ciy gagné addina bi yëpp ñoo ciy gis seen les journalistes xam nga les les journalistes gars yi defar t-shirt gars ñi ñiy gagné ci làmb moo bari état bi Macky Sall le président de la République càmbar ko xool ni euh, xool ni làmb facteur de développement la mu jël trente milliards def ko ci. c' pas pour rien parce que président de la République jox nañu cër valeur bi ñu am non ak lu mu mën demee rek mooy tey làmb tey c' pas pour rien ministre bi li mu wax te moom la ñuy moom la jusqu'à preuve du contraire. parce que li muy wax ay magum jëmm lañ am ay réflexion bàyyi nañ xel bu baax ci li muy wax bu ñu toogee di d'ici quelque temps gis ñu lañ ko wax càmbar ko tegal ko ko gis ñu benn réaction on va continuer.

président de la république day déglu lu gën a garaaw lu ay ay ay ay kaddu gën a doy waar te il assume fii Sénégal personne n'est indispensable mënoo nekk nag jiite kuréel mënoo jiite kuréel boo xam ne tey am na ci lu 90 pour cent lu jaaru ci yoon nga ne kenn du la dut baaram amul loolu yàlla sax amu ko yàlla bi sàkk ñëpp ñu ngi jëm ci weeru koor waaw di wax ni jullit yëpp yàlla nañ ko fekkee ak jàmm te woor ko ci ci ci ci ci mbégteeg suñu suñu borom personne n'est indispensable mënoo jiite kuréel te kenn du la dul baaraam loolu mënul nekk loolu boo ko bëggee bul jiite dara boo jiitee loo xam ne quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais da te kenn du la ci wax dara ngay doxale lu neex loolu yàlla yàlla sa amu ko lu yàlla amul nag nit mënu ko am